li tax woote bi nag suñu euh, mbootaay bi ñu wootee bu ñu woowee association des français suñu kuréel bi ñu woowee association des français du Sénégal mooy doomi France yi nga xam ni Sénégal lañu cosaanu ñun dañoo juddu fekk suñuy wayjur am ci ñu bari ñoo xam ne ay français lañu dañoo am nationalité française am ci ñoo xam ni par décret lañ leen naturalisé wee am ci ñoo xam ni par ascendance donc ci loolu tey jii nga xam ni dafa yemoo ak fukki fan ak ñeent ci weeru juillet 2023 dafa yemoo ak fête nationale France fête nationale France nag ku ko dégg mooy li euh, méngoo ak 4 avril bu Sénégal parce que ci la France moom boppam tey jii nga xam ne ci la France di amal fête boobu ñun ñi nga xam ne ay français lañu cosaanoo fii ci senegal dañoo bëgg xamal waa France ne leen am na seen doom yu ñu boddi nekk ci yeneen bërëb ci àddina bi yoo xam ni jàppewuñu leen ni ay doomi France et pourtant ëppale wuñu dara ndaxte suñuy waajur dañoo liggéey ba xëy génn àddina fay lempo ca France bokk ci li tabax réew moomu ba tax na ñu amal ndaje mii pour wane d'abord ni ñun ci France la ñu bokk mënuñ ko dindi loolu yàlla moo ko def te itam boo seetloo 14 juillet bi li mu firndeel dafa bari ndax boo seetee ci taarix moom la ñuy wax libération de la Bastille loolu lu mu wund mooy bés ba France moomee boppam ñun ñi nga xam dañoo nekk fii ñu am droit am suñuy kayit consulat bu nekk euh, France bu nekk dakaar fii bañ lank ba tëdd sa naaj wane du ñu jox suñuy kayit boo amee doom mu juddoo fii ngay français nga am droit dem transcrire ko ci consulat ñu war la mën a defaral acte de naissance am defaral la passeport ak pièce d'identité ci saasa ñu lay kalli kalle nee nañu léegi amatut da ngay am doom nga ñëw foofu parce que français nga waaye da ngay jël rendez-vous ci seen site internet bi rendez boo xam ni doo ko mës a am parce que seen site bi toxut muy loo xam ni dañ ko def à dessein maanaam tayeef la ñu gis itam ni am na ñu bëri ñoo xam ni seen i kayit mu ngi foofu que ce soit seen acte de naissance bu Nantes wala seen certificat de nationalité française wala ku bëgg def transcription acte de mariage ak yi ni mel mais mënta ne dafa mel ni consulat France def ñu beddi génne ñu ci boppam ne ñu yéen bokku leen ci ñun du ngeen ay doomi France loolu naqari ñu ba ci kanamu yàlla ba nga xam ne fi mu toll nii ñun dañuy niru ak ay apatride apatride mooy ku amul nationalité ba tax na ñu bëgg wax ak àddina bi ne France bi nga xam ni mooy woote ni moom dafay sàmm ak ak yelleefu doomu aadama France bi nga xam ni nee na yaay moom mooy yeddaate ci àddina bi moom mooy wër di wax ana kan moo war a euh, sàmmonte ak ak ak yelleefu doomu aadama ak ana kan moo koy jalgati moom mi nga xam ni mooy dalal ay euh, way dawlaqu yu jógee Ukraine yu jógee Russie yu jógee Afghanistan yu jóge Pakistan ak feneen ak feneen ci àddina bi mu am ay doomam yoo xam ni dañu am droit bu gën a élémentaire ci àddina bi mooy ak d'état civil mu bañ lànk ne du ñu jox suñuy këyit loolu di nuru ak naafeq boo xam ni kenn sañu ko wax nag ñu ne nag jot nañu nit ñu jóg wax ak àddina bi ñu ne France bu fekkente ne dañoo boqatu ci réew moomu ñu wax ñu ko ñu xam ni ñuy taxawee ba tax na bind nañu sax ay bataaxal yónnee ko consul ba ndax suñu association bi dafa rëy lool ndax euh, association la boo xam ni de loi 1901 la ca France bokk na ci ay villes yu mel ni Le Havre Paris Marseille ak feneen ak feneen yoo xam ne am nañ fa ay euh, ay ay euh, représentation suñu représentation bu nekk dakaar fii nag bëgg nañu jàkkaarloo ak moom consul bi laaj ko lan moo tax mu nag suñuy këyit bañ ñu ko jox lan moo tax mu bañ ne du établir suñu passeport ak suñu pièce d'identité lan moo tax lan moo tax lan moo tax donc loolu mooy suñu woote bi tey ñu koy naqaru ba ci kanam yàlla ñuy woo ñi nga xam ne dañuy sàmm ak ak yelleefu àddina bi muy mbootaay yi mel nii rajo ak yi ni mel ñu wax ci lii. parce que bu fekkente ni ñoo ñun bu ñu euh, yenn réew yi bu ñu jalgatee France moo leen di euh, teg ci yoon ñoom itam bu France jalgatee war nañu ko mën a teg ci yoon. looloo waraloon ndaje mi donc euh, association bi man maay secretaire général bi sama tur di Siabou Camara. membre du bureau yi yenn ci ñoom ñoo nekk ci sama ndeyjoor ak sama càmmoñ donc euh, man euh, loolu mooy euh, li nga xam ni moo taxoon ñu woo taskatu xibaar yi pour naqarlu ko pour wax waa àddina bi li nga xam ni moom la ñuy dund ñun guddi yu ñu toll nii donc loolu moo nekkoon ndaje mi.